daal leen ak jàmm ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañuy addu rek jëmali nag ci dëkk bi ñu naan sàkkal gannaaw rek bi ñu doon inauguré li nga xamante ne nag moom mooy seen centre de santé ab coow lu rek moom moo fa dox ci diggante li nga xamante ne rek ñoom ñooy sàmm kaaraange Amadou Ba nekk premier ministre bu Sénégal ak élément bu brigade d' intervention polyvalente ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy assurer sécurité kii di mari Marie eh, sa Ngom Ndiaye ginnaaw nag mbooloo mu takk boo xamante ne rek nemmeeku woon nañ fa ak yenn coow bañ jot a sox nag lu toll ci ñaari coup de feu waaye lépp ci suuf lañ ko def mbir mu nu mel nag euh, jur na ñaari blessé yoo xamante ne rek jot nañ ko ci enregistré ñu fàttali leen boobu lee policiers nag jamono ji yóbbu nañ ko fi nga xamante ne moom mooy ci commissariat central bu Louga mu fanaan fa guddik euh, samedi euh, jàpp dimanche waaye nag ginnaaw bu ñu ko dégloo nag dañ cee ubbi nag ab enquête bu ñu sukkandikoo ci suñu nattangay observateur moom mi ba tey rek nee na boobu agent police nag la mu daal di xam ne moom moo tiire ñaari coup yooyu yëpp ci suuf waaye nag la mu ca jublu woon dafa bëggoon mucc rek ci ñi nga xamante ne dañu may agent hygiène yi nekk ay éléments yoo xamante ne dañ koo jàppoon rek wër ko ba xamul nu muy def moo taxoon nag mu tiire ñaari coup de feu yooyu ba tey rek moom la mu daal di xam ne moo di sax ñu ràjjee ko sax moo koy gënal nag ñu koy humilier ci kanamu mbooloo mi yëpp boo waral rek mu daal di def boobulee réaction ndax digniteem nag mayul ko benn yoon rek ñu koy éliminer moom nag ba tey rek la mu daal di xam ne ginnaaw bu ñu ko dégloo daal di nay dëggal ne moom moo def mbir mu nu mel waaye nag ci boobulee mbir mën na am sax mu am ab nal bu fekkee ne rek enquête bi nag dañ koo daal di clos te mu jógee ko nag ci ministre bi ñu denk nag wàllum euh, kaaraange biir réew moom nag jamono ji mooy décider rek ba xam da koy toppandi wala dafay classé boobule dossier du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewul bi.